salaamaaleykum mbokk yi maa ngi lay nuyu baax di leen ziar di leen baalu àq nga xam ne saa su ne yéenee jàkkaaru seen télévision Waarwi TV nekk alu si Ahmadou Bamba soo jotaay bi nag tey jii mu ay gan gan yu màgg yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bu sell bii di Touba muy waa Touba ca kanam bii yoon nag ñuy dalal ci ndimbal yi nga xam ne ñu ngi koy dimbalee doomu aadama yi nekk ci dëkk bu sell bii di Touba te amuñu ci xaj amuñu ci seen képp koo xam ne ba ngaa xam naka la ñuy séddalee ndimbali ak naka lañ koy jëfe ak naka lañ koy doxee na ngeen ñu xaar alxames incha allah bu 10h30 jàpp Walf di ak Waarwi TV ngeen ci ànd ak seen doomi ndey seen rak seen jigéen seen mag ñu soxna Maam Jaara seek ñu fas yéenee waxtaane commission sociale naka lay ñuy defaree seen ndimbal ak Waarwi TV dara du ëmb ci réew mi rawatina ca Touba ca kanam kon li ñu war mooy jàpp ca Touba ca kanam ndax mu dem ca kanam